nag kon loolu lépp bokk na ci sensibilisation yi li sëñ Gana wax lu am solo la euh, sëñ Fallou ma bàyyi la ak euh, sëñ Ahmed ak sëñ Baye Amsa xam naa ne gaañu na mun nañ leen ñu ñu daal di ñëw su ko defee ñu door a ñëwaat ci sëñ Mën Lamine ak sëñ Aliou euh, jërëjëf sëñ Am jërëjëf sëñ Amadou jërëjëf sëñ ci macha allah li nga indi ci biir xaside yi te muy waxi sëriñ bi te sëriñ bi moom damay wax ne mhm. diggam ak borom kumpa dafaa jeex mhm. doonut koy làmbatu diggam ak yàlla mhm. dafa leer naññi ba kumpaam jeex ci diggam ak boromam musta jaawale mukk moom sëriñ Touba ci ne jaamub yàlla la loo ko masaa wax ci àdduna sëñ Busra junj na ko nee na jay bi ci kajoor mucc naa ci xupp bi ci tubaab bi it mucc naa ci euh, musta jaamale loo mas a wax sëñ tubaa rek Abdullahi lay bind moom wane na jaamu yàlla la waaye li muy bëgg bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak li mu koy liggéeyal lépp day tegtaloo rek ne jaamub yàlla la buy liggéeyal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di wut ngërëmul yàlla nag. loolu la sëñ Abdoulaye wax ne nag ngërëmul yàlla loolee nag moom sëñ waa ba nga koy wut amut jot amut it noppalu musta gestu dara itam. loo ko bëgg a lu dut ngërëmul yàlla lam lay tontu mooy lastu amilu li sawa maa yurdi rabbu samawati wa rabbul ardi nee na doxin woowu lay dox nag moom ba ne taraw lii ridwanullahi taala akbar ngëbal ko boppam nag ci la soog a woote rek wax na naw mi xibadatun rabbi la sharika lahu xal bi yu dabiru ayan tourisul ikama kon sëriñ bi mëne su koo loo ko waxal bind na ko dama leen dafa ñeme responsabilité ñeme responsabilité weesuwut kër ba muy xëyee mbàkke bari mu bind ko ci ak xasidaam wax na tey ji laa fi xëy bi sàngam li ma tax a jóg nàngam la dëkk bu mu taxawit nee na agsi naa ci dëkk sàngam bi sàngam li ma taxoon na jëg nangam la xaraj ci yow ma sabti saamina azar li xidmatil muxtaar yi xàllama ni rahmaanu fi safina ba mu koy wax ca ndakaaru bi ànd na ne xadimu ma madina la waxoon engagement bi mu jël ngir rasul ngir lëggale rasulullah mosu ca dellu ginnaaw ba ñibbi sil boppam nag waxaatal boppam na la ma doon wut am naa ko noonu yi ma toppoon it jéggal naa leen daw leen ñëw te xam ne man mii maay géejug texe maay borom njëriñ la ànd ak kooku su wootee loo xam ne sowe taas la buy sowe àdduna bépp ñëpp ko wul wuy mhm. damay wax ne la sëñ Samba Diarra Mbaye waxoon ne sama woote bii ku xëy mu tàbbi ab noppam tamuy tanxam lu def boppam ku doy xolam ba bàllakul ba xam waaye wooteeb Cheikh Mouhamadul xaa bi comme tàbbi sam nopp nga di murit te wuy si woo ah, yow am nga problème ndax sëñ Mountakha dafa wax ne na murit yi ñëw newut na bii ñëw bàyyi bee de na murit yi ñëw Tuubaa te fees ko del la wax xam nga danga toll ci jamono joo xam ni Cheikh Ahmadoul Kabir dañ ne nañ distance yi nañ ko soreel nañ jël mesures barrières yi nañ def nangam ak nàngam xam nga loolu dañuy fàtte na yàlla diggante distance bi nga soreel lu mu soree sore rek pexem yàlla mën na mën na faa dugg yow fexee la jege yàlla te bul soreel distance bi jegeel yàlla rek ndax yàlla moo yor kaaraange gi in tansurkum allahu yansurkum fala xaaliba lakum wa in yaxsulkum fa man sallisi yansurkum min baxdihi yàlla mooy koo xam ne bu la dimbalee doota soxlaa dimbalal kenn waaye bu téyee dimbalam nag amut ku la mën a dimbale ginnaaw moom la sëñ Muntaxa wax ne nañ delluwaat ci yàlla delluwaat ci yàlla nag li gën a wóor mooy jaare ko ci sëñ Tuubaa moo tax bis boobu la woote mu wootee ko nag muy bisub xasida yaakaar naa nag kuy def ay xasida am nga ak xasdu damaa bëggoon nag ma ñëw ceeg sëñ Ahmadu mu ñëwal ñu ci bis boobu sëñ Muntaxa woote li mu woote xam nga sëñ Muntaxa bu dee woote njàngum alxuraan woowoon na ko jox ko sëñ xabanum sañ Fàllu ñoo ngi ñaanal sañ Maamoor yàlla na ko yàlla gërëm sañ Tubaa gërëm ko alxuraan gërëm ko moom mi ko yoroon waaye bi muy woote bi su alxuraan sañ sëñ xaban la woote mësuñoo dégg mu woote bi su xasida tey nag la wax ne damaa woote bi su xasida neewut na ñëw wérdu neewut na ñëw jàng alxuraan neewut na ñëw daf ne dañ ñëw leen jàng xasida yi sëñ Tubaa doon taalif lan mooy xasida yi sëñ nga laaj laaj bu am solo boo xam ne itam tontu ko jafe a Cheikh Mamadou Mountakha wootee woote boo xam ne tam dafa doy waar ndax da ko wootee ci njëlbeenu weer yi nga xam ne mooy al ashurul xurum al ashurul xurum ñeenti weer alquran wax ne inna iddata shuhur inda allahi isna ashara sahran fi yawma xalaqa samaawaati wal arda minhaa arbaatun hurum daalika diinul qayyim falaa tazlimu fiihinna anfusakum wa qaatilul mushrikiina kaaffatan kamaa yuqaatilunakum kaaffatan wa'lamu anna Allaaha ma'al muttaqiin. sahih. ñeenti weer yooyu bi ci njëkk mooy muharram. lan mooy we al ashhurul hurum mooy weer woo xam ne suñu borom dafay digle ñu bañ cee def benn mu yàlla dafa ci feesal dal la jaamu yàlla. ndax loo ci jaamu yàlla suñu borom da koy ful waaye safaan bi tam la bi ci njëkk mooy muharram waaye mu woote ko ci barab boo xam ne tam barab la boo xam ne dafa nekk barab bu am xorma seulement Ibrahim dafa ñëw Makka kër ko xorom soo demee Kaaba boo ko jubee ci yenn barab yi dañ la bu fi rey xar bu fi rey daara rab mhm. teeñ set suñoo ko rey mhm. ba mu des luy lor mais li koy ay jaan wala yu mel noonu doo fa rëbb lu fa dugg raw nga <laughs> yonent bi gàddaaye makka ñëw madina ne yàlla inni ibrahim xarama makka wa ana xaramtul madina <laughs> ibrahima la mu def makka utal ko xorom ba nga xam ne benn rakka ca makka dafay wecc téeméeri junni rakka pour foofu man muhammad def naa noonu madina sëñ tubaa barabam biit mu ñëw sanc ko ne waccal xarim ha xariman amina mhm. wa kun bi hissihi kafilan damina yow it sama xorom bi na ko def ne xorom yooyee waccal bi daariyakal madina la waxam darajatan wa kaabatal masul ndax mel li dina ak makka lu fi waay jaamu yàlla dis na ko ful moo tax si Abdou Xaadir daan wax ne jaamu yàlla fépp la baax waaye fi la gën a sëkk ne mhm. loolu lay firi sëñ Daaru Asan Njaay daf fi jaar am fi ñetti fan dem fekk sëriñ bi njaareem nuyoo moom yu nuyoo ak moom mu noppi xamal ko ne ko fii laa jaar ndax sëriñ bi bëggoon a dëkk bi bëggin woo xam ne eh, taalib yi dañ ko daan wax kanamam ndax xam nañ cofeel gi mu am ci Touba. Mm-hmm. mu ne ko am na fi ñett fan mu ne ko mu ne ko moo ne sëñ Daaru mu ne ko Mbàkke mu ne ko sa ñetti fa yi tuubaa yi wecci na sa juróom-ñaar fukki at yi ci jaamu yàlla. Eh, waaw léegi nag dañoo woote ci asurul xorum. Mm-hmm. ci makkaanul xorum. Mm-hmm. lu ñu woote encore li ñu woote nekk jëmmi xurum muy ndax jëmmi Sëriñ Tuubaa la xasida nee nga ku ko tudd danga tudd ak jublu xasdu te xasida mooy li nga xam ne mooy génne mooy ballu ci ruuxu sëriñ bi mooy jëmmi ruuxu sëñ mooy lubbu xal bu sëñ bi mooy jëmmi dëgg-dëggi Sëriñ Tuubaa mooy xasida kon ñett yooyu bu dajee yaakaar naa ne ñu woote ko rëy lool am na solo damay tàmbali rek kii wax ne la sëñ Gana wax na ci lu bari gis nga li gën a sonal lit mooy seytaane seytaane ñun rek moom rek lañu yàlla wax ne mooy seen noon mhm. moom rek mooy dox seen diggante ak li ngeen bëgg. te mooy sama ngërëm. benn noon ngi am mooy seytaane. Mhm. sëriñ bi ne hërëba min kitaabatil madxuuru wa bi lusuumi tataxanna alxuuru seytaane dafay daw dañ koo dàkku ci sama mbind mi. Mhm. ndax sama mbind mi mooy li nga xam ne xóorul ay nii ci àjjane moom la ñuy wayantoo. kon ndeke bi ñuy njëkk def mooy ñun bu ñu dikkee tàggoo seytaane d'abord bi ci tegee mooy jëf yi gën a màgg ci jëf yi mooy jihaad ci yoonu yàlla jihaad yi itam xam nañu ne tey bi ci gënoon a màgg tey mooy al xaswatul badrul kubra xaswatul badrul kubra sëriñ bi ne maddaliya siral masoona fanjaal xattiyee misla yow yi badrin fanjaal nee na suñu borom dafa ma jox asirul masoon su lu ma sonn nag tey buñ ci ñëwoon bëgg koo wax. dafa doy waar. mooy loo xam ne suñu borom rek daanaka moo ko xam. suñu borom jagleel ko ko. nee nag mu def sama mbind mii mu am daraje ku taxaw fekk bisu Badar te bisu Badar yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne yéen ñi ko fekke woon lu ngeen dundati bénéfice la. benn waaye dafa yonent bi day fa day préparé Fathu Makka mm-hmm. kenn ci saxaaba yi fekk woon Badar xam ne am na ay bokkam yu nekk Màkka mu bind benn leetar pour informer leen naa Jibril la cëpp na yonent bi ah yow yaa ngi def véhicule yaa ngi waxtaanee loo xam ni secret la ngir bëgg a bett waa Màkka mais am na leetar bu ñu bind te ñu ngi leen di informer Seydina euh, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woo Seydina Omar ak ñenn ci saxaaba yi leen dem leen dabi ko muy soxna. ñu dab ko ne indi leetar bi mu ne yoruma ko ñu wisitu ko gisuñu ko ñu ne ko dañ mu génne ko ci lëtt yi ñu gis lettre bi ñu indi ko si yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Omar ne bàyyil ma dagg bopp bi yonent bi ne ko ndax xol ne ndax xol moo la wax ne la fekkutoon Badar te ko fekk Badar dara yàlla toppatuloo dara allahu akbar te xasida yi boobu wàccuwaay la am bu leen ma wax ne déedéet dafa dañuy wax boo jàngee balaaxa dañ lay wax ne la al xususiyatu laa taqtadi al afdaliya mbir jagoo ko te xut ñu ne moo gën la ko kawe mm-hmm. alxuraan xam nañ ne moo kawe xasida waaye jagle xasida gi firiwut ne kon dafa kawe la neen déedéet benn tomb alxuraan sax kenn du ko jam-gam leeg leneen waaye jag jagleeg suñu borom la ko xam suñu borom suñu suñu borom moo ko ko defal léegi nag ci loolu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam na sayyiduna omar jublu seytaane daw ah sayyiduna omar sayyiduna muhammad ku gën ah moo ne sayyiduna muhammad nee na seytaane damay julli mu ñëw ba ci man ma xoj ko ba mu yuut sama loxo yi bu tutoo nag nit ñi danaa ko yeew fii ba xale yi ñëw di ko reetaan te keem fu mu dugg fu mu dugg ci mbedd seytaan yi daw kon ak jaglee ma jaglee taxut ak ngëneel mhm. mbir la kon lii sëñ Tuubaa ko yàllaa ko ko jagleel xasida gi mu taxaw yu mel noonu mhm. na kitaabati xablu la ahlal kitaab sama mbind mi ca nasaan yi ma nekkoon nee na ngi mel ni ci ñoom bisu badat ba ndax man lenn loo xam ne yeddaange la duma ko def man sëñ Tuubaa duma ma jublu nit tam danay tawasul sëñ gaana tudd na ko léegi baatu tawasul bi mooy jottali ko dara yàlla suñu borom bi tabaaraka wa boobu soo ko waxee mu def loola amul lu ca gën jëf ju baax jëf ju baax yi mooy jaamu yàlla yi sëriñ bi dafa ne kitaabati naabat anil amali asalihaati lintihat lintahat amali mm-hmm. nee na sama mbind mi dafa wuutu jëf yu baax yëpp jëf yu baax yëpp nag bàyyiwul dara mhm. sama mbind wutu na ko mu waxaat ne kitaabati naabat ani nawaafili sa badri abadan bi aafili mhm. nee na sama mbind mi dafa wutu naafili yi waaye man Sëñ Tuubaa mooy maay badar la wax de weeru leer naññi tiim ñëpp te du ma suux wallaahi te yee tax mhm. ndax waxoon na keneen ne ko yaay sam su sumuu si yaay jantub jant bi tegginam tax na kon mu ne moom kon badar lay doon su ko defee nag mu waxaat leneen lu doy waar ci xaside yi nee na doona makaatibi doona makaatibi li ibadatu maan taxarrubi kull al masaya jamaa nee na benn benn benn jaamu yàlla nee na jaamu yàlla yëpp yës nañ sama xaside yi nee sama tumuranke bii sama juróom-ñett at yi ma def nii ci géej gi nee lépp luy ngëneel dajale naa ko foofa la nekke al fardul jaamia am alfardul jaami mooy lan hmm. mooy jënn jëmm joo xam lépp lu baax daje na ci moom wala yëhab jam allasi tafarraxa bayna alxiyaari karaman wal tufrixa bayne wa bayne kulli jalibin ila gayri ridaaka wal tutayib ni ila lépp lu baax daje naa ak moom parce que terrain ba départ Makka jaar Madina jaar yi dëkk jaar yi dëkk fu ne mu wàcce fa ba mu dikkee leen yàlla su borom tabaar boromam tabaaraka wa taala li ma gëm mooy train bi bagage yi ci wàcce woon na yéegal suñu borom yëgalaat bagaas yëpp mu déqi mooy yan bañ yanoon ab da xut bi ak dale te attanuñ ko moo ko yanu raw gaaña waaye li ci tege mooy dëngañ diwi te tabatul walaaya sootu la axbaar li am ci aaya muy muy muy muy muy muy muy lim boobu mu so sootu bàqara su ko defee muy loo xam ne tam moom la yàlla gën a bëgg xam nga di di di di di woote ñaan jaar ci la yàlla gën a bëgg te li yàlla gën a bëgg nee na mooy xasida mi allahu ndax nee na kitaabati li sil wara ahabu min xayri min min xatti xayri wali man yu xab képp ku ñuy sopp ak lépp lu mën a doon nee na sama mbind moo gënal yàlla kon kooku loolu dafa dafa day waar sëñ sëñ gànna sëñ euh, bu saasaamu dégg naa ko mu wax ko léegi ci ne kulliyati mujisatun te aqarat gis nga léppi sëñ tubaa kéemtaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla la soob mu négee ko ba waxtu yi mu feeñal ko su ko nekkoon ne kon kitaabati min mu'jisaatil muntaqa salla alayhi man hadahu wantaqa sama mbindi dafa bokk ci kéemtaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga yaa ngi wax yaa tudd sànq ci fi ngay daaneel ci wax ay ibaad sëñ Tuubaa Abdullahi la nekkoon gis nga Abdullah jaamum yàlla boobu sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu euh, àgg na fi foo xam ne ci maqaama al ubudiya te maqaama ubudiya ci la nit ñëpp di rawee ñëpp suñu borom tabaaraka wa taala da koy àgg foo xam ne mbubbam yi muy sol ngir mu yuppil lu ko xam ngeen yuppi ab jaam lañ koy def da am sab jaam xaral jox ko liñ koy waxee wala nga may ko mbubb suñu borom nag mbubb yi muy joxe di ko joxe ay jaamam la koy jox de ay jaamam moom it la koy jox moom it ay jaamam la yuppil kon ku la ci raw raw la moo tax keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di riñaan jëm Makka jóge Makka dem Jérusalem baytul muqaddas jóge fa dem Mi'raaj eh, dem ci suñu borom ba ko yàlla nekk li dafa wax ne waxul subhaana lasi asra bi Muhammad mhm. dane subhaana lasi asra bi abdihi mhm. daf ci am ay xeeti xam-xam ay xeeti xam-xam yoo xam ne alxaqul mujarrad xel kese munu ko dékku mhm. faw nit ki dafay àgg ci foo xam ne xelam dañ koy euh, leerale nubbuwa waxuma la nekk nabi la mais lu dafa xelam dañ koy leerale leeru nubbu ko mhm. moo tax ma ne lubbii sama xel lubb mhm. xel dëgg la ci biir mun a lubbii mun na warun bi nooril waxyi mhm. dañ ko leeral ci leeru waxyu moo tax muy mën a capter mën a am recevoir ay xam-xam yoo xam ne moo tax wahabtali uluma man taxaddamu wa man taaqaro bi kun ya may nga ma xam-xam yu njëkk ya gaa yu njëkk ak yu mujj yëpp mu dajale ko loolu dafay dugg ci li ma waxoon sànq ci ne yàlla def ko muy alfadlul jaami mooy lépp lu neewoon démb ak bëkk démb ak li ñëw lépp mu dajale ko ci moom. macha allah su ko defee kon léegi suñu nee jëf yi foofa rek Sëñ Tuubaa dafa raw ñëpp mooy nekk jaamu yàlla dafa wax ne su subhaana gis nga bi muy wax de bi muy waxaat nettaliwaat moom ni mu nekkee jaamu yàlla ndax foofa. nit ki jaam rek la mën a gis nga suñu borom bam ah, yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu demee ba rañaan ba àgg fa boromam suñu borom di ko wax sotti yooyu xam-xam xam nga wa mu wax waxoon fa awha ila muhammad de dane fa awha ila abdihi mhm. ma jaamam ba parce que foofu foofu rek ci boobu cadre ngay nekk mun a am connexion ak capacité recevoir dégg nga sa mémoire wala boog sa dis nu ngeen ko mën a tuddee yéen ci technologie nouvelle technologie bu mën di jël image yooyu ak xam-xam yooyu denc ko te du yàqu def dara ci maqaama moom la ko ne la ko la ko amee kon nga gis ne moom euh, soo soo gisee maanaam uktubu naaxilan min allahi damay bind di toxalee ma mahfuus te sama samay li may bind duma ma ci wax lu dul lu nekkul kon sëñ bi maqaam ubudiyu moom rek da cee tiim ñëpp moo tax ma ne subhaana man jaalani abdan lahu tudd naa sellu buur bi ma def ma di jaamam lool nag ci balaaxa ak ci kii ku ko mënoon décortiquer fii day lu yéeme. wala si waaye saaxa man xasaloo comme nar a comme nar teg gàcce ëllëg du la ànd la booleeg man mukk waa léegi yonent bi dañ ko laajoon ne ko jën jëf moo gën ayul amal afdal jën jëf moo gën mu ne idqaalu surur ala qalbil mu'min mu ne dugal mbégte ci xolab ko gëm yàlla moo gën ci jëf yi waaw ki gëm yàlla kon boo ko weesoo dem dugal xol dem dugal mbégte ci xol bi yonent bi nag te nee na yasurru afdal wara jinaasi bila taqarrurin wala adnas sama jinaas jinaas mooy sañ gaana xëy na doon na ko juñu sàng jinaas dafa am ay anwaaru jinaas yi jàng balaa xam nañ ko bi mu ne asiru maa al abraari hiina asiru wa sanna al ida anni ñetti asiru yooyu ben bukki moo luy fii loolu mooy jinaas nee nag yonent bi sama jinaas da koy bégloo dem ba ne isaa katabtu farihal musammilu wan qaada lii min al jamili amalu su ma biggee su ma bindee yonent bi day bég mbind mi da koy bégloo te su bindee day tax ba lépp lu ma mébatoon mu jóge ci yàlla bi nga xam ne al jamil mooy a rafet ji kon wax na lu bari li gën a de garaaw mooy ci xasida yi xam ngeen mbindeefu yàlla mi gën a màgg Ah, ah asamu xalxalaa mooy al aras soo boole woon aras ak kursi yu ak asamaan yi juróom-ñaar ni ñu koy tuddee ak suus yëpp soo ko boole woon par rapport ak aras mi ngi mel ne nga jël sab jaaro sànni ci sànni ci biir forêt bi ni fo ni jaaro toll ci forêt noonu la aras ak asamaan noonu la kursi yu kon ak asamaan juróom-ñaar ak suus yeeg adduna bi yëpp boo leen ngam-ngam le woon ak aras noonu lay toll kooku nag kooku nag. lépp loo xam ne boo jëlee mees boo jëlee sa xalima jëmee ca bind loola yëngutu ngir màggal sa mbind sa mbind rëy na li xaalam ixtisaasu arshilaahi maha ibaaxi kulli jaanilahi maa sha kon yaakaar naa ne loolu mooy li nga xam ne moom ci lañ ñu woo tey jëme ñu ci fi ma ko tàmbalee woon ñu wooyoo ñu ko ci weeru tedd ci barab bu tedd ñu ci lu tedd kon yaakaar naa ne tey jii loolu giiroo la li misli haasa fal yatanaafisul mutanaafisuuna li lii moo jëre njëkkante bu arxaan naan saabiqu ilal xayraat fastabiqul xayraat njëkkante leen jëm ci lu baax njëkkante baa ngi nii tey macha allah sëñ Ahmad Touré jërëjëf njëkkante baa ngi nii day mel ne bi ngay junj xasida yi rek fi mu ne gaa ñi moom seen xel yëpp